salaamaaleykum yéen ñiy saxoo di seetaan seen site internet mourides point info képp ku bëgg a abonné suñu compte YouTube bi da ngay tàppee mourides point info nga bës bouton abonné bi nga coché cloche bi vidéo bu dugg nga mën koo seetaan. képp ku bëgg a topp suñu page Facebook nga tàppee mourides point info nga cliqué suñu bouton j'aime.